wax yéen a kat fu ma jëm yéen a kat ñi ma bëgg ñan futa uri kam min futa toro uri kam fuuta uri kam min fuuta tooro uri kam layi allah ndaare fuuta allah macha allah macha allah nee naa ni ñu dooxee nag dina wone dëggantaan que ni émission bi dina neex ñu nuyu leen jaajëfal leen bu baax a baax dalal leen seen émission di ci xel yi tey ñu dalal kenn ci artiste international sa lay wax ndax du Sénégal rek a ah, déedéet muy monsieur Cheikh Tidiane Guissé muy ñu gën leen xam nag ràññeeku ñuy trois macha allah di ree frère Guissé waaye moom nag tey moom lañ dalal bëgg waxtaan ak moom tuuti rek ci musique monsieur Cheikh Tidiane salaamaaleykum. maaleykum salaam allo Dakar fu mu nuyoo foog ñu fay ah, donc nag maa ngi leen di fay di leen siyaare et puis ci seen seet si ak seen yegg si. ñu nit kontaan nañ bu baax a baax ndax dalal bi macha allah mu doon nit ku baax waaye rek dañu bëgg rek waxtaan naam wax waxaat du bari wax rek waaye fàttali ñu rek monsieur Cheikh Tidiane moom mooy kan. waaw euh, membre euh, membre fondateur la ci groupe bi Frère Guissé groupe bu existe depuis un peu longtemps mais bu ñuy xayma dañ naan euh, décembre 95 parce que si la album bi njëkk a génn il y a donc 23 à 24 ans ñu def ci album yu bari. yoo xam ne on a beaucoup défendu les femmes way ci lu bari xeex bi am Palestine wayal baykat yi wayal sëriñ si taara way jàmm ci réew mi donc way lu baree bari mais lépp teg ko ci benn musique boo xam ne dañoo créer benn ouverture wala jéem dox ci benn ouverture boo xam ne dafay nekk musique boo xam ne dinañ ko mën a déglu fii déglu ko feneen ci bitim réew donc loolu mooy euh, départ Frères Guissé quoi

Somo ma juumul Lakou ngi en 86 87 moi un professeur qui a été moo Théophile Obenga ben ben béninois Les léegi ñuy waxtaan ba del c'était il y a 30 ans aux HLM dans une maison avec un euh, je pense que prof universitaire la Marietou Diong Un mouvement des étudiants ils ont organisé vraiment commémoration sur donc c'était en 87 donc ñun léegi bokk nañ ci paa yi quoi. yéen bokk ngeen ci te les ténors de la musique sénégalaise kenn du ko dindi te boobu ba léegi macha allah yemu leen si ngeen ñëw indi benn touche boo xamante ni comme que gars yi parfois ñu génn def mbalax bu saf. léeg-léeg ñu jékki-jékki ne dañuy def album international yéen ngeen jékki-jékki rek daal di génn ak variété innovation boobu nan ngeen def ba ba jox ñu loolu. waaw ñun euh, dañoo yàgg déglu ay musique yoo xam ne euh, moom lañ doon gis nii. mom suis mëna à l'étranger sonu mbalax bi musique bu neex la dañ koy déglu ma fi fecc <laughs> mais musique bi ma préféré jouer la musique bu douce la musique buy buy traverser frontières donc loolu moo ñu ak ay influence yu ñu amoon ci ku mel ni Seydina Issa Wade les incompris de la musique sénégalaise

influence ñu amone musique yu ñu daan déglu loolu moo dellu si ñun man maa ngi nekk xale nekk ak sumay mag ci biir kër gi mais à 15 ans maa ngi déglu ay ñoom Wouk tu vois moo nekk c'était le plus grand trompettiste ou ventiste de de l'Afrique xam nga ñoom bi Bissa télévision moo ñu ko daan woy moo ñu ko daan won mu doon duroog ay xalam de donc musique yooyu lañ daan déglu pendant que ñeneen ñi ñu ngi kii ci mbalax donc euh, influence bobu mo ñu top ba nga xamné musique bi ñuy def dañ né vraiment musique tout simplement une musique ouverte aux autres publics. Ah, lan ngay wax artistes yi nga xamante ni ñoom ñu ngi basé rek ci ci ci musique bi ba pare naan mbalax bi manam ci ci mbalax bi autant pour moi artistes yi nga xamante ne dañu basé ci mbalax ba paré naan musique bi doxul loolu ñoo loo leen di wax. <laughs> waaw musique bi bu ñu nee doxul dafa bari dafa bari contour dafa bari contour daf ci am ben ben point bu ndaw rek moins que structure statut musicien n'existe pas au Sénégal C'est problème ça veut dire que médecins yi ordre des médecins les journaliste journalistes etc. Ils nañu kii et ci bu sa kër di jubal structures yoo xam ministère de la culture le ministère bi maîtriser wul exactement parce que c'est l'art c'est la culture lépp la ëmb donc musique bi pas très bien protégé ni entretenu ba nga xam ne nit ñi dañuy jug rek ku nekk da ngay xool fu mu nooyee rek nga jubal foofu léegi nag mbalax mi nag dafa nekk <laughs> loo xam ne mooy li gën a yomb waaw mooy li gën a simple mooy li gën moom lañ gën a bëgg moom lañ di ci gën a mën a déglu et tout ça donc euh, ñu ñu ñu tàmm ko nekk si di tàmbalee mbëggeel di jeexalee mbëggeel ko man moom laay tooñee quoi <laughs> donc du coup voilà euh, mooy musique bi gars yi gën a déglu voilà su su wax xaa mom boobu moom tukulóor rek ah, jàmm jàmm <laughs> mais nee nga ma sànq euh, ministre euh, culture bi ministre euh, yenn fenn da ngeen am muy maison de la culture culture ministère de la culture euh lan nga yakane mom bu ko defoon di ngeen ci yek sen bopp bon man pour commencer ben li ma si njëkk a rek moy amna ay at yu weesu yu bari bon ku mujjé ki yag na fi mais qui espace ou 8 ans ou 7 ans sans je n'ai presque 20 ministres ça veut dire qu'il n'y ken ken ko ci meuna taxawal programme dérouler programme au bout de 6 mois 8 mois ñu tégg le tek kenen koku au bout de 9 mois ñu tégg donc amoul ken ko ci meuna tek programme ça veut dire que incapable lobu lo ay ay ay voilà même si bu tête ñewé du fa yak donc ba nga xam ne structurer musique bi dafa metti nit ki dafay ñëw jaay di jaay sa CD si mbedd bi boo ko jàppee yóbbu ko police yooyu yaa ko tooñ ci naka non ci loi bi ci loi bi du fraude ah ci waaw amul benn loi bu nekk nit bu jëlee CD piraté ko def ko nii def ko nii càcc la ba nga xam ne yow boo seenoon nga génne sa album génn si mbedd bi gis ko koy jaay ci feu bi nga xeex ak moom gaañ ko wala dara bu ngeen demee police yaa fay des ak kon artistes yi ñoom ils n'ont pas compris alors. non non loolu kay loolu ben ben ben branche kese la. Ah. mais il y a beaucoup d'autres qui euh, yo xamné très mal organisé ba nga xamné difficilement le artiste bi di dund ci limuy lekk voilà. man nga ban relation nga am ak artistes yi. relation yu bax nak on a de la chance muy man di jibi on a de très bons rapports ak euh, ak ak musiciens yi ñoom ñi ah, ñii grand lañu ñi suñuy boy lañu ñi suñuy xarit lañu donc euh, vraiment amu ci kenn lenn loo xam ne chance boobu aussi la sunu génération yi ama ah, parce que am na génération yoo xam ne daaw ñu laalante quoi du ñu jegante dañuy oh, mayante buzz waaw waaw mais buzz moo xew léegi quoi <laughs> ku bëgg dañuy mayante buzz maa ngi ce matin di lire bizarrement dama ko lire rek ma xam ne fake news la quoi Moussa Gningue dama ko lire rek c'est xaw ma lu tax depuis hier la nuit voilà ma ubbi rek dama ko gis rek xaw ma lan la mais jéewu ma sax lijjanti xamoon naa ni du du lu taxaw quoi après lan na mais effectivement donc ku ci nekk da ngay wut noo noo fële ni di sagawate ni di jiiñaate ni di def nii ni di frère ñii di. Fred Guissé ci lan la nekk temps waaw préparé benn album là préparer nañ benn album ça veut dire que ñun dañoo nekk groupe boo xam <clears throat> dañuy temps jël temps wu album jël temps def promo bi def tournée yi et cetera dellusiwaat donc euh, ce qui fait que gëj nañu génne. mais li ñu gëj a génne yëpp ñu ngi woon ci ay moment d' enregistrement yu bari bari on a enregistré léegi fi mu toll dañoo enregistré ba xamatuñu waa voilà mais nii nii nii ci ci weer yu ci ci semaine yu néew wala ci prochain mois bi nii incha allah am na lu pare am na benn morceau d'ailleurs bu ñu invité sunu grand Jimi mbay waaw mu ñëw ñu defoon nag moom Saaraba mu ñëw xalaat ci Saaraba lu neex a ne xam naa dinaa la yónnee morceau bi sax na dugal ko ci mbir mi Nous avons am exclusivité mu ngi voilà donc euh, loolu mu ngi a et puis nous ci loo xam aussi euh, côté citoyenneté ñun depuis 13 ans depuis di ñëw mooy doon 14e année bi dañuy organiser festival au parc de Anne festival de l'environnement bu tudd festival. donc natif du quartier de Anne euh, yaroo ci parc bi doxantu ci géeju bi voilà donc mu nek bu nek zone polluée, xamné dafa polluer polluer ba nga lu fa nit en danger ñun ñu ñëw ñu mais nous continuons de continuer di ko ñu ci organiser festival tous les ans on contacte beaucoup de de scientifiques des professeurs des gens qui œuvrent dans l'environnement société yu nous avons créé des ay panel ay sensibilisation euh, comme ali bi musique bi invité artistes yu Nous ñu ñëw nit yu bari si sensibiliser les waxtaan ak ñoom euh, visite euh, des lieux par exemple à la baie d'Anne, exposer un tout petit peu ça veut dire que expliquer baie bi nu il y a 30 ans c'était la plus belle baie du monde elle fait partie des les plus détériorées donc euh, naka lañu mën a def même bu mënul delluwaat ni mu meloon mais au moins ñu seetal ko ba nit ñi mën a toog à côté donc ci parc bi aussi directeur bi jàppale ñu lu baax a baax commune al Hann Bel-Air jàppale ñu si lu baax a baax euh, waa ONAS tout autour donc euh, ni ci juillet bi normalement dafa doon coïncider ak journée mondiale de l'environnement muy 5 juin mais accord yi gi ni muy def nii dañ koy bàyyi décaler ko ba ay juillet donc loolu ñu ngi waajal album bi waajal festival boobu yenen ak yenen yenen ak yenen yenen koy waaj yo xamante xamna dang koy denc ndax cat ngeen ci bañ wala. barke seex <laughs> cat dafa gaaw. <laughs> na ko waxee fan fan fan la ñuy tourné fan ngeen di tourner da ngeen am sen studio bob euh tourner euh sen son yi fan ngeen koy enregistrer wa non un peu partout ah xam nga ñun dañoo bari lu ñuy def ay collaboration par exemple on a fait beaucoup d'albums à l'étranger Hollande def nañ fa presque ay 3 albums de collaboration récemment dans les pays de l'Europe de l'Est def nañ fa ay collaboration yu bari fii au Sénégal euh, studio on a enregistré pendant longtemps fii de temps en temps ñu xool benn musicien bu nekk à côté ñu dem studio même dernièrement Papis Konaté fa la enregistrer enregistré Lamp euh, au niveau de Guédiawaye studio bo xamné Omar Pen fa la daan liggéey enregistrer nañ fa ça veut que ay couleurs yu bari la wër ay loxo yu bari lañuy wër mais amna li nga xam gëna acoustique nak fofu ci kër gi fi lañ ko enregistrer fi lañuy ñëw tëju ak suñu. <laughs> Euh, kan mo leen di produire yéen produit seen Wow, loolu tamit beneen histoire la parce que bi ñuy soog a door dañoo ñëw defar sunu maquette di wër ku ñu produire mais producteur bu dajal ñu ne gars vraiment li neex na trop mais dafa manqué tama ak sabar quoi carrément donc loolu li ma la wax ni c'est ay 94 93 94 ñu wër wër wër gisuñu waaw après ñun ñu ne ambiance bi yàgg na fi <laughs> tama tama yàgg nag buumam <laughs> léegi loolu loolu moo indi autoproduction bi ñu dem ñu ne boobu puisque affaire bi nii la demee gars yi dañoo bëgg dañu bëgg a mbalaxloo lii ñuy def duñ ko nangu ñu dem di def suñuy concert di dajale suñuy xaalis di def suñuy concert dem suñu premier euh, première production ñu dem studio 2000 ñuy remercier El Ndiaye parce que jàppale na ñu bari bu ñu fayee ko woon affaire yi normalement du dem mais am na lu mu fayee ko am na lu mu bàyyi. wane yëfi xaal pulaar. Euh, ne da ko ban <laughs> donc foofu. Euh, ñu dem dañuy dem def ay concert un peu partout temps boobu aussi club de jazz dafa doon dox dafa club de jazz yu bari yoo xam ne boo joué fii tey joué fii suba joué fii tey joué fii suba dem enregistré ji loolu moo indi albumu Fama le 28 décembre si suma njuumul en 95. Ah, bo fekk na Fama di soog a judd kii caméra ni, kon way wi moo ko moom. kon kon <laughs> may ko Fama may ko Faama wala nga may ñu Siré ah Fama Siré. dara doonulee dara amul lu mu gisul amul lu mu dajul faama xool ci yàlla doon muñal borom këram ba mu toogee mën a tukka ni faama dem na faama dem na faama dem na kër ga mu ne wéet na faama mooy ki nga xam ne fa muñ te nangoo uus njabootam faama mooy kinga khamne faming te ya nango uk jabo tam kunyo fe kamay bar dem fe kamay bar del si fe kamay bar dem bakong bar ni fama i fama fama fama dem na bilay suma sañon man mi fama du dem bayyi fi jabotam bilay suma sañon man mi faamatu dem bàyyi fii njabootam ndax jëkkër ji nga xam ne mënul tolloo ne ay jabar dëkk ci di ko ne yàlla xamul waaw macha allah mu neex lool yal na yàlla laf ca ndax nee naa woy yi dafa nekk yi nga xamante ni dañ ñoo berse dañuy toog doon ko woyantu di ko jàng sax ba loo <laughs> commencé ñu àggalil la <laughs> mais mais bëgg waxtaan bi am na solo mhm. euh, am na solo macha allah mais bëgg naa rekk laataa ñuy kii rek ma ah, laajte album bi. album maro maro ataaya yow. ataaya gi war naa mën a ñëw tamit ndax ni ñu toogee jekk na lool. eh Ablaye jox foofu kii bi waay. jox ñu ataaya bi ñun ñu naan ñun ah nee naa lii fii rek la am chez chez chez frère Guissé boo demee kër kër kër kër kii kër Haalpulaar nag moom lii moom si seen cosaan la bokk lii lañ ñu xamee ah faw ñu faw ñu caayin. faw ñu caayin macha allah nga na léegi moom neex na torop torop torop yal na yàlla laf cat rek ah lii daal mooy. Euh, lii mooy ataaya ataaya naar bu oyof bi lii da lay digéré loo invité naa leen yéen ñëpp dégg ngeen ay gis nañu ñu ñu nga ngeen tàmbal ñu ñu jox ay acoustique yu neex mhm. te Cheikh Tidiane nee nga ma léegi album bi def ngeen presque lépp li ngeen tourné ne bari na mais est-ce que mën nañ ci xaar benn mbalax bu saf rek nga jox ñu ko bonus <laughs> wala nga may ñu ko dédicace ñun ñi teew ñun ñi mais am na benn benn affaire bu ñu génne boo xam ne xaw la yëngatu tuuti ah. bu ñuy woy rendre hommage Seydina Issa Wade vidéo bi mu ngi daw ñu ko tuddee bay Sidi donc euh, loolu waaw loolu xaw naa yëngatu tuuti de. Ah, kon xanaa xanaa ñu duggaat studio invité suñu suñu xarit yi am nañu suñu xarit yi ñuy joué ndool de temps en temps ma ñoom Dembel Diop ah euh, bassiste ak yooyu. Wow, maam maa ne jox ñu suñu ñun xam nga ñun waaw bi classe Nous sommes gis nañu quelques endroits euh, de la place euh, euh, est-ce que nga ñu wax ci club de jazz yi nous permettre ñuy rencontrer ak di bégal comme comme on dit suñu fans quoi parce que dañuy bëgg déglu. dañuy bëgg album yi dañuy bëgg yu bees yi euh, duñ ko dégg bu ñu travaillé semaine bi ba sonn ñëw ñu féexal seen xol waaw donc club de jazz yi donc foofu nag des fois ñu xaw a yëngal affaire yi quoi xam yaaye boy baaye xolal ni may doxee taru na boy yaay boy tabe na yaay boy jakk bayil taatu sàkket so si gaañoo loo di wax yaay boy xanaa ni yaay ponte jam na ma poto bala doon jam loo fa doon fee doom xanaa ni yaay ndogalu yàlla la wane man ba ma ñëwee kër baay ba ma ñëwee kër yaay ba ma ñëwee kër maam fekk la ngay waaj waañ pendel ba nga wootoo ba ngay jekki ceeb ba taar ba bu moo ma neex wante man ba ma ñëwee baal ba jotuma laa xàmmee da nga nduroog nasaraan yaaya booy taaru na taayu na tabe mais yaay booy bone tànnuma lu tax liñ fi waxtaaneeg liñ fi dégg fii yëpp am na solo dañuy tënk rek wala ñu tëj ba beneen <laughs> yoon incha allah mais Allo Dakar jaajëfal nañ la bu baax ah maa leen di jaajëfal waxtaan bi neexoon na lool di leen ñaanal aussi yëf yi jëm kanam ba fi ngeen bëgg jërëjëf yal na yàlla nangu ñaan ñu ni tamit ñu ngi leen ñaanal i tamit ngeen gën a jëm kanam rek projet yi si kanam yal na ci yàlla teg loxo mu sedd guy macha allah li lañ leen indi loon seen émission li ci xel yi dalaloon kenn ci frère Guissé muy monsieur Cheikh Tidiane yaakaar naa liñ fi jot a waxtaane am na solo liñ fi jot a dégg yi tamit ci guitare comme ni ñu leen xamee am na solo beneen yoon lañ leen di jox rendez-vous fii ci Allo Dakar TV jàngeen jëm